yëkkati na ndeke yoo bu ñii di gàmmu tey ñeneen a ngay ras dem tribune yéen a kaay naan man ca procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ma ñëw tegal sa baaraam waaye faaw ma wax la nag la nga xam ni moo am ca terrain CFA xam nga terrain CFA ci gaawu gii soxna yi gëm sa bopp yi dañoo woote woon ndaje fas yéene nag investir seen candidat Bougane Gueye Dany borom tekki jot na ngir nag 2024 tribune naan man maa ngi ñëw ci procès Sonko ak Mame Mbaye Niang de may ma ma ne ko ay ca mu ne ma nag ca terrain CFA boobee la jigéenu Ndakaaru gëm sa bopp waroon daje yéen a kaay bi naan man neel war daje ma ne ko war daje mu ne ma ca ndaje ma ñu war a samp nag seen candidat ngir présidentielle 2024 bi yéen a kaay bi dama waxoon nga ko ma ne ko ay cëkkoon soxna yi gëm sa bopp yooyu yee jagat-jagatee seenub demande juróom-ñeenti fan ci weeru mars bii lañ ko yóbbu jébbal ko nag autorité ba nga xam ni moo ko war a jël yéen a kaay bi naan man waaye le 14 mars bii Mamadou Gueye mi nga xam ne moom mooy maire bu jidda caaroy kaw te terrain CFA Djiddah Thiaroye kaw la nekk daal di woo moom it ay soxnaam jox leen ab demande ne leen déposé leen ko le 14 te ci demande boobee soxna yi Mamadou Gueye yi war fa daje ci même terrain CFA même heure 15 heures que jigéenu gëm sa bopp yi yéeni kaay bi dee média bi naan man njiital domaine la mu bëgg moom moo di jigéenu gëm sa bopp yi seen ndaje ba daal di furaas ma ne ko turbine kan lan jox autorisation bi mu ne ma boo moytul ñu lànkal ko ñaar ñëpp waaye buñ ñu ko lànkalee gëm sa bopp mooy daal di perte ndax nag bëgg-bëgg Mamadou Gueye moom sa bopp bañ am foofee ndax seen ndaje feneen lañ ko taboon ci beneen wax ci beneen bërëb gannaaw ba ñu bëggee amal suñuy ndaje ba suñuy band annonce daal di jolli te la ñu walbatiku ñoom it daal di ut même ndaje même heure même lieu lii bu dul tooñ lu mu yéenekaay bi naan maan en tout cas waa Benno Bokk Yaakaar seen yéene moom moo di saboté investiture yu Bougane Gueye Dany tribune yéenekaay naan maan ñëwal ci procès Mame Mbaye Niang beeg Ousmane Sonko le témoin yéenekaay ne ko procès bi day doon na le jour des seigneurs le mandat yéenekaay ne ko réewum Sénégal dafa mel ni dañuy nit lu ko saf te du mujjee fenn turbine yéene kaay ne ko en tout cas procès Ousmane Sonko ak bi day man ca mbedd ma moom jiital Pastef nee na ko aate a démb manifestation yi nekk ci Ndakaaru yàggul benn journaliste akub député ñu blessé leen bés bi la jour ne ma Guy Marius Sagna ci boppam la ñu blessé l'enquête quotidien ne ma Pastef nee ñu Ousmane Sonko la jël def ko ci présidence surveillée te du yoon suuf su aanaan maan ni démb moom ko ràpp ci këram doom ji ñu ne ko doo dem l'école moom jiital Pastef dellu këram ak i garde du corps am yu yeewi askan wi nga xam ne dañoo ñëwoon jàppale Ousmane Sonko ku ci mel ni Guy Marius Sagna ñu daal di koy gaañ ci tànk suuf su aanaan maan ni ki démb ci place de la nation benn leader bu yeewi askan wi taxawaalu fa police maar day taali te démb nag woote nañu manifester na na ñëpp dem cité kër góor gi waaye policier yi wër ndomb cité kër góor gi rek kër Massar Wakaam ak Liberté si ak Bignona tant nañu waaye taal wi sottiwul 24 heures yéen kaay naan kon xanaa doo xool mobilisation ba am ca Thiès am ca Mbàkke am ca Kédougou amit ca Sédhiou l'enquête quotidien naan kon manifestation yooyee ci jàmm la am ndax nag dañu ko autorisé bu kër Massar dong lañu ñu autorisé wul te boobee nag daal dinay defu bruit l'observateur naan kon déet bruit kay ni ki démb ca Bignona foofee nga xam ne am na ñoo xam ne nañ fay gaañu gaañu ay soxna def dung di manifester l'observateur naan kon waaye dans l'ensemble laa ni la réew mi tàkkul bu bal tàkkeet sagar xeeñul benn leader bu yeewi askan wi ni ki démb génnoo manifester agresseur yi ni ki démb faf ñoo yor coow la di génn nag di langaamu ci kaw nit ñi critique yéen kaay naan koon ni ki démb day yeewi askan wi mujjee nañu nag yeew askan wi ndax nag woote manifeste gi mën naa jural rée mi waay direct news naan kon ay mën na cee bañ a am de ndax président Macky Sall dafa jël ay devant daal ji waajal bu nuppi les ko yéene naan dàqu procès daal la avocat yi Ousmane yi wër léegi nag ay étranger sax faf nañu bàbbeeku ñëw ci mbir mi vox populi naan Ousmane Sonko daal loo ci mënti dégg dañ koo tëj ci këram daal di koy emprisonné jëlub dictat teg ci kawam ne ko doo dem doo dikk mu daal di mer ba futtu patriote yi fekk si ko tribune yéene kaay jox kàddu Alioune Ndaw ma jiite woon cré yi Alioune naan procès en diffamation la ñu wax mbir la boo xam ne mën naa bañ a yegg si nekkul mbir moo xam ne mën na cee déjitum nguur las yéene kaay naan kon moo taxit ba sub dëgg gi niki tey la ci tribunal bu ndakaaru les a dàqee ndax tey procès bi mën nañ ko dàq lob Sénégal yëngu na niki démb manifesté nañ ca Mbàkke ca Saint-Louis ca Ziguinchor ca Bignona ca Podor ak ci Thiès Sénégal daal di yëngu ci rythme yeewi askan wi tribune yéene kaay daal ndax procès dëgg-dëgg mënees na koo def ci mbedd mi laas yéene naan maan waxtu woowu moom président Macky Sall Sall ma ngay piis ndaw yi ne leen ne leen jàkk te bu leen ma xool fi mu toll nii tàlluma dara lu dul seen mbir xëyu ndaw yi la bëgg audité xool fu muy jaare la xëy yooyee tribune yéen a naan kon moo taxi DSE ba nga xam ne moo nekk ca Côte d'Ivoire daal dina ñuy xam le ni nag président Macky Sall kese képp la ñuy topp DSE ba dina daam fay la ñuy jiital ak i collaborateur am ndax équipe la boo xam ni saa bu ñu tëggee fii ci Côte d'Ivoire ndam ñëw quarante coordination yëpp daal di ànd ak daam fas yéene jagat jagatee président beneen ndënd fas yéene jagat jagatee président Macky Sall ànd ak moom ngir mu sampaat beneen ndënd te bu ko sampee Côte d'Ivoire xamal ko ni ndam li moom yaa koy jël tribune yéene kaay ne ko bu leen fàtte ni Benno Bokk Yaakaar ma ngay saboté nag investiture bu Bougane Gueye Dany yéene kaay bi naan man bu leen fàtte ni ni directeur général bu SNHLM Diagne Simbeng daal dinay porté plainte nag maire bu Kër Massar Nord Adama Sarr critique yéene kaay ne ma lii maa la koy leeral ndax nag maire bu Kër Massar Nord dafa tuumaal directeur bu SNHLM ne dafa daal di jël ay terrain defar leen di leen jaayiwaat Diagne Simbeng ne mësta am te porté naa ko plainte ngir mu andi ay lii mu wax ndax amul lotissement bi ci boppam juróom benn junni ciy parcelle la ñu daal di leen di dogot dogotee ci marché école ak stade maanaam ay infrastructure de base te lotissement bii muy wax 1987 la woon ba tey man maa ngi dugg SNHLM 2019 las yéen kaay naan en tout cas réew mi moom jaxasoo na Sud Quotidien naan kon demal ba Sigicoor dem ak dikk dina leen ndax bato ba Aline Sitoé Diatta ci boppam moo paan Le Point yéen kaay naan man wuuteeg taxum fandaan Sinthiou Mbandaan pël ak Sinthiou Mbandaan séeréer ak Bulem ak Gaña Bugu ak Sidi Bugu saa si tembe day teex teex may ree ndax juróomi téeméer ci kër robinet yaa ngay jolli ñii naan ndox yéeni kaay bi naan man Maguette seen moo leen ko defal te naan pare gu ma ak ñoom ndax dëkk dëkkaan bu nekk Malicounda di nga am case de santé wala it nga am bërëb boo xam ni fajukaay lay doon tribune yéeni kaay naan kon bu leen fàtte ni réewum Sénégal a ngi jax Dakar Times naan kon bu leen fàtte ni waxtu woowu États-Unis ci boppam ña ngay tàccu Sénégal ci police bu xarañ bi libération yéeni kaay naan man coow leen ci faatub xale bii bébé bu ñaar ci weer xale boobee dafa Philippe Maguilène Senghor ca yóbbu ca l'hôpital boobee la médecin yi alerté gendarmerie ndax nee ñu daal mbir mi dafa taq suuf waajur yi nee ñu dañoo nelaw ba xaaju guddi quatre heures du matin ñu geesu gis xale bi daanu ci suuf yëngootul yóbbu hôpital loolooy faatoom libération ne ma lëndëm gaa nga ca faatu xale bi ma ne ko ak lu mën a am na ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm ñeel na ko Mantoulaye Thioub Ndoye merci beaucoup fii la ñuy ndar képpee seen bloc d'information la matinale en transit sur Soubatel alors une petite page publicitaire mettra fin justement à l'édition euh, corsée d'information depuis 6h30 merci à vous de nous avoir accordé du crédit et de l'intérêt tout de suite Soubatel